company d'abord jël ay nuyoo yu sell teg ko ci loxo yu sell yu sëriñ Bassirou Abdou Khoudoss mu tegal ko ci loxo yu sell yu sëriñ Abbas Mbacké xalif Daaru Muxti mu tegal ko ci loxo yu sell yu sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou xalif général président wax ni bu ñu ñëwee it surtout Serigne Touba ñu fi fekk yëpp mi ngi leen di nuyu rawatina Serigne Abdou Ibn Baye Cheikh Khady Mbacke Serigne Abdou Samad Mbacke Ibn Serigne Modou Awa Balla Mbacke Serigne Abdou Lahad Mbacke Ibn Serigne Cheikh Gaynde Fatma Mbacke ñoom ñëpp ak surtout Serigne Touba yi fi nekk yëpp. président Macky Sall mi ngi leen di nuyu mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di sant président wax ni lii nga xam ni moom ngeen def tey lu am solo la jël ñaari thème yoo xam ni benn bi temporel la benn bi spirituel temporel bi mooy da ngeen wax La cohésion sociale est-elle menacée par la politique Spirituellement, nous je vais dire le peuple, je vais dire le peuple, je vais le président a dit que et nous barrons, nous de La cohésion sociale et la politique Il menacent. Nous avons une réponse, moment-là bi ci dëkk mooy waaw beneen bi mooy déet mais man dama jàpp ni ci xalaatu président mooy politique day warul doon menace cohésion sociale bu fekkente ni politique dañ ko def au sens étymologique du terme maanaam lijjanti luy développer cité bi lijjanti luy développé réew lijjanti luy développé askan yooyu ne buñ ci tënkoo wax dëgg yàlla politique warul doon menace ci cohésion sociale bu ñu jiitalee li nga xam ni mooy citoyenneté jiital li nga xam ni mooy civisme bëgg sa réew gëm sa réew politique warul doon askan warul doon ñu féewale askan warul doon ñu tas kon dañu concentré wu ci bi nga xam ni moo war a doon menace bi tey ñëpp ñi yëngatu ci wàllu politique tey ci démocratie bu ñu doxalee démocratie nga xam ni mooy la loi de la majorité bu boobaa benn problème menace bu am ci société te fii ñu jóge day muy ay élection Sénégal yàgg na koo def dans les depuis les années mille huit cent Sénégal a ngi vote donc dëgg yàlla benn problème mosul am ci élection Sénégal lu riir mi bare bare jàmm rek mooy tax conférence yi président di leen maam yu baax am Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ak bu mel moom fii ci Sénégal yor diini ji ak tariixa yi ñaan fi def bàyyi moo tax Sénégal jàmm rek di fi am ndax Sénégal réew bu mag a mag ci wàllu population du réew bu mag a mag a ci wàllu superficie am na lu ko yàlla defal mooy jàmm ak salaam am na réew yu bare tey boo fa demee kan lu ñu def lii ngeen def si am na réew yu bare boo fa demee ñu ngi reyante moom yaa ngay guerre baa ngay am te réew yooyu sax sorewuñu damay bañ a tudd tur wante yàlla defal na jàmm Sénégal defal ko salaam defal ko dal ba nit ñi ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci seen salaam ñu ngi xëy ñu ngi gont ku nekk ci nga deuxième thème bi day muy le spirituel thème bu am solo président nee na thème boobu day am na solo rawatina nag ngeen ko muy maam Thierno Birahim Tall bu ñu dégloo conférence yi nit ñi mën a jàpp ci moom bare na wante dafa am loo xam ni faaw ñu retenir ko ci moom mooy lan mooy nangu kilifteef ak am solo ndax bu fekkente ni suñu maam borom Touba tubaab bi daf koo du ni sax yóbbu dama jàpp ni tubaab bi amul maqaam ni yóbbu Mam Serigne Touba Cheikh mamadou Bamba gabo wala nga fenen dede amul ma xam boobu suñu borom ko tracé loon yoonam bu mu wara am mu war fa dem ngir motali liggéeyal muy liggéey ak suñu borom lolo ko fa yob mu dem fa ba dem si ak fu mu jaar yëpp parce que fi togalon de moy mam cheikh ibrahim Ba te ñu wax ci mom ay wax lu bëree ay jikko ndax wax nañu léegi nii mosul nangoo feeñ mosul nangoo feeñal boppam fu Sëriñ Tuubaa nekk bëggul ñu tudd ko dafay effacé wu te amoon na day wax dëgg yàlla confiance su Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké kon ku mel noonu royukaay la ci nouvelle génération royukaay la ci ñaari yëf yoo xam ni moo doonoon dundam te ñu wax ko léegi. mooy lan mooy liggéey ak jaamu yàlla liggéey ci mbay ak am solo ndax suñu réew mi dey mbay moo ko téye loolu tax ba président Macky Sall jël agriculture teg ko foo xam ni ci priorité mi la